su ko la nekk. la fonction de revue de presse. <laughs> voilà des des de des Euh, du patron du syndicat des célibataires du Sénégal Aline Badara Sougou. ñu tàcc wala. tàcc leen waaw. maman Fatima Niang nee na dajji nga ko. waaye maman Fatima Niang almadi. waaw nee na wallaay sa honorable dajji na ma. Eh, xam nga réew mi tamit mënul nekk fii nii ñuy rey suba ak mën guddeeg bëccëg nit ñi bëgg a ñuy génnee seen livre bi naan balancé daan waar ba pare nit ñi di gën di wu vraiment xam nga émission bi c'est une émission matinale il va être fou livre kay lañ ko waroon a voilà waa pas le moment opportun mhm. voilà dégg nga nuyu nañ la yaay booy léegi nag hmm. ah billaahi wax nga dëkk non nee na yem nga sa bàyyi nag honorable anam yi bu ma jaxasee sama dëgg la rek li nga wax amut ay <laughs> Eh, yaa ngi def lu musul def toog di gaaruwaale sa papa. waaye ça c' est c' est grave. yow suba fajaru na ñëw. <laughs> man donc eh, boo ñëwee ñu ubbil la. nga toog rek mu def émission bi. yaa toog fii. gën a gàtt nag na nga jël ñetti points yi. papa maa ngi jéggalu. te na nga ko ñetti points yi. ma ma dellu si waatal ci l'affaire Khalifa. ma sukk wala ak député yi. ak. Euh, député demuk demuk Diomaye gi ci Sine. député kay du ma ci waxati moom ma indi lii kay. du ma waxati député. demuk Diomaye ga dégg nga. Mm-hmm. voilà léegi. sama mbagg mu métti nag. Mm. man xaw ma indemnisation les les blessés de de de de. pourtant pourtant loolu laa la bëggoon laaj léegi. loolu fu mu toll loolu fu mu fu mu ah, nu dimbali accéléré loolu waaye. commission yëpp dee dox. yow da nga caa da nga caa bokk sama waa ji laa bëgg indemniser am na victime bi dafa bëgg waa ji nag. dañ ko war a indemniser. man de man victime bi ma doon jàppale nii fi ne nii ku ma ci woon ni ma woy honorable xam ma ne maa a doon victime. mbagg ba jugatul fi nii xanaa xanaa xaw dëkk bi nappaate doo nga fi ne damay nappe nii rek de mais ku ma xeexaloon nii boo insister cinq minutes ma reculer ndax benn loxo da koy jug mënoo toog benn bi jugul mbagg mi la mais damay nappe nii rek doole amatul <laughs> gars yi ma ne eh riigul nii nga gis ñu toog te eh mais damay toog nappe sama bi rek laa utiliser fi mu ne nii booy bi ne ma mais seen journaliste bi présenté fii nii seen télé bi boobu maa ngi kër nandi tey non kii présentable na macha allah ma ne ko waaw ah, ndeysaan moom nag jàmbaar la quoi. dina dina ngi xam ne lii lii soose dafa garaaw. waaw mais non non non yow yow yow yow double indemnisation lañ la war a jox. c'est que gis nga loxo bi ci poxotaan bi. Hmm. bokkul ba léegi ak ki nga xam ne moo moo moo ma moo ma gaaw. ki ma gaañ mooy ki téye ci sa cat li xoolal gis nga cat nii. kii moo fa waroon teg bi rek gis nga. li ma jaaxal Abel yow li mbooloo mi di bari bari yow rek lañ ci def nii de. un deux trois quatre cinq. c'est parce que ñeneen ñaa ngi taxaw. cinq la kii xoolal kii. est-ce que xam nga lu tax loolu. Ah. dafa bokkoon ci ñi doon gën a xataraay man maa ngi fa woon. Hmm. cinq. loolu mooy <laughs> bi boo fay dem doon del xool mooy solo. <laughs> mbaxana mii man ni R plus 10. mbaxana kat du fekkee coono boobu nga fekkee mukk. foo ko woon ni xeex day am. da koo ca fajar man de xeexkat pourtant xeexkat baa ma romb rek de ni ma xoolal dekk leen seen cravate yi. waaw romb nañu nii rek nañu simbi leen seen cravate yi. balaa tey gars jàpp gars yi nañ leen fi kii de nañ leen fekk de. ma gaaw ne ko cas lem woo teg ndimbal Omar Ndiaye ñëw ma jox ko ndànk jox ko sama portable di jaay giree. même Guy Marius ah, Sagna kër yi képp koo xam ni image yi choqué na la. Mm. na kër yi jib ay kër. merci beaucoup taxul nga dabu. loolu wax ci présentatrice ba ca gën naan di tey. waaw xoolal lii aywa képp ku image bi choqué rek dugalal euh, euh, dugalal ay kër lii ñëpp la war a choqué. Hmm. des des cœurs pour mon père. xoolal Amadou Mame Diop ca kaw xoolal Ahmed Niang. moom moom xeex la war a bàyyi. xoolal ndaw si ndaw si nekk si ginnaaw mi ngi taf gémmañ yi mi ngi leen di Kéré yow xanaa xanaa xamoo kee kan la. kan la kee moom laa lay wax ne la mooy nit bi ñu jël placé ma ko man mooy meeru Ndiaffate. yow yow la doon récolte. moom na man day xaar chaque jour bu ma jëlee parole bu doog a jël parole. yow lay toog waaw. Assou Ndiaye mooy tax léegi boobu de du mu xeex Guy Marius Sagna. yow. Ahmed Koura ku nekkee na mais kooku man moo ma tippoo. ku nekk sa si. yow la tippoo voilà. tant que yëkkatiwoo loxo duñ yëkkati loxo. moo tax xol bi képp ki image yi choqué. maman maman maman Fatima Niang nee na yow blessé de guerre nga. blessé de guerre. mais El Hadj c'est yow blessé de guerre nga yow. pas une guerre moom. voilà yow triple indemnisation boo raam. Ousmane warul lu mat ñetti weer ci nguur. Mm. te waxuma ne ma mbagg mi fi mu toll. waaw waaw oui ñoom aussi dañ leen fal pour ñu xeex injustice. xam naa yàgg yu ma di sànni mu gën a tam teewoon nañu ko téye bu métti. jour boobu yow. ñu dañoo jékki-jékki fat ñu ci néeg <laughs> mooy commandant mu ñëw naan ko di li barki dee ma la de sama mbagg mi mais commandant sama mbagg mi doo leen ci wax mu ne ma pourtant sama bureau lañ leen indi woon. <laughs> nga ne ko balaa nga ñu fa indi loo leen ñu def. képp koo xam ne. Ahmed soxal na la te te image yi choqué na la mbir mu mujj naa rouge nag affaire na naqari na sénégalais de. wallaay ndeysaan dañ laa bëgg a. de pétition. Hmm, gars yi pour la mbagg da Ahmed pour la mbagg da Ahmed. pétition pour la mbagg da notre père. voilà. Mhm. na ma ne ko waaw ndeysaan moom day jàmbaar moom. Mhm. benn jour rek ma ànd ak moom foofu ngoon gi nii doon def di defi voix damaa bëgg xaalis. Mhm. def publicité ba pare xam nga gone bu ñu maquillé gu leen loolu rek. nekk ci chapeau yi xoolal naan nii xoolal waxal Fatmata Diop mu jox ma au conseil kan moo wax porte parole bi boobu ma kii yeegul kat ban heure jot yow xoolal ma yow léeg-léeg mu ne nii. waaye bi tey yow lay ci jël lii. soo soo si takkul weer takkul dara. bu taxawee takk veer yi moo Elisabeth Ndiaye kiif kiif ma ni leey léegi xool tomb léegi nag fulaar yi xoolal raj ak ci kaw tegagul périg bi de bopp ba mel ni tool xoolal waaye am sapo bi yow joxal ma simeer am sapo bi joxal jë traversé romb sama xarit bi romb ko rombaat ko <laughs> waaye jékki-jékki ne ma télé daal baaxul ma ne ko am découragé na. ndaw si dëkk yére rek la des. ndaw si kay ndaw si kay soo ay ko yére rek. c'est vrai de parfois nga gis ni si télé nga génn te seeg moom danga naan est-ce que kii laa doon gis. maquillage yu bëri dafay. Ah surtout ñun jigéen ñi xam dañoo bëgg maquillage. bu ma la jé ba ma yéegee ci scooteru ngaala bi bañ tawte. almadi lañ jaar de. tawta nag ma sawaay supporté ma waa ji di ma xool di ma xool ma ne ko walaay juumoo man la man nii la man nii la man a de man a soose waa mais kii moom la wala mais grand bi kon xool ci télé bi moo moto bi nii tawte nii nga ne ko mooma man a fi mu nekk moor ma ne ko walaay man a moor <laughs> yére rek la dese xam yu mbër ndekete kii yére rek la dese. te boo ko gisee si télé bi nga ne indo la. dañoo wuteeg sama doom yi de. waaw ñun nag boo ñu gisee nii ni ñu mel nii la ñu mel. noo liggéey xale. waaw ñun dañu rafet. soo ñun ñii jëm nañ mag di. Mm-hmm. bu fi xeesul da ngaa ñuul te ñëpp a rafet nag. dëgg yàlla tarkal tarkal yaa ko fa am nag. tarkal waaw maa ko fa am de. Mm-hmm. maa ko fa am te luyee ma ko jaayu ma. mën ngaa fëgg sa nag. waaw waaw te dama ko fay xaar nag. Ah, di ko ko jaay nag. mais léegi la ñu ne ah sa doom jee nga naan ah dama ko fay xaar nag maa bàyyam <laughs> fekk boo demee xulóog bàyyam rek la fa nekkoon waaye ma ne dama ko fay xaar dégg bés fi la jour ñëwal ñun ci. kii nee na nga def revue de titre bi day xëy man damay xëy amet dimbali dimbali <laughs> ko day xëy. ah moom moomu laay waxal. <laughs> képp koo xamante ne nii sama mbagg mi mitti na la defal rouge na kër yi dugg na kër yi dugg dégg nga kii nee na pour sama nijaay pour ñu jëndal ma ay pommade yooyu. waaw voilà cagnotte pour sama nijaay. dinaa leen jox sama numéro rek comme ça foog ngeen koy dugal. non def ko sama numéro direct. déedéet bàyyi ko walaay ma la yaa ma ëpp soxla doom day jigéen nga. man damay jóg rek wattu neel rek teg ko ci. man ngeen ko déglu sa mukk ci àddina 156 li ci des dinaa leen ko. mukk ci àddina 650 sama doom yii laay dégg nga les le jour ñëwal ñun ci bilan fukki at ak ñaar yu président Macky Sall hmm. APR daal combat mbaa ngi ni lay contre le projet Sidiki Kaba ne loolu ñu dajale di inventaire mbéta ko yor bu jëkk hmm. dégg tontu la loo xam ni soose waaw une réponse limpide nee na nee na aux déclarations populistes ne waa projet bii di waa Pastef seen lépp wane rek la kese maître Oumar Youm nee na ah <laughs> maître Oumar Youm doon ñaaw na laa miin tamit nag. non li mu wax rek ah. maître Oumar Youm fii tamit. di ngeen fi gis dootul yàggati dara ay doom yoo xam ni ñi leen di ngénte duñ seen bàyyi xanaa inauguration yi la bëgg a wax projet yi. ah ni mu ko waxee. te noonu rek la ko mën a waxee. ah vous verrez sous peu des baptêmes d'enfants qui n'ont pas enfanté waa mii Omar Youm tamit nag awa mu. nañuy rafetal kàddu yi waaye kàddu yi nay rafet. waaw. Ah, Mansour Faye waaw Mansour Faye moom. Mansour li mu wax mooy. gorom bi la bëgg mu dikk. Macky waaw. waaw waaw waaw ko de. waaw daago nag fañ la nommé ñoom nag wane nañ ne. bëgg nañ seen waa ji te nopp nañ seen goro bi moom Mansour Faye réclame la retour du grand goro bëri nañ goro waaye goro bu mel ni Macky ñoom nee daal ci kaw gàttan na ñëw balaa maa utiliser gros mot dégg Amadou Ba nag l'absent le plus présent am démb demul ca ndaje ma waaye am am indil am am am indil am am am indil am mu ngi nii mi ngi nii dégg police nag fi mu nekk nii raxas nañ ko ba mu set ordre sawel ko diw ba mu def na si nañu division des investigations criminelles sûreté urbaine commissariat central mi ngi. raxas nañ ba mu set. amut. suy ma laajoo. dégg Baara Sankare borom force spéciale ya force occulte jëlee nañ ko Adramé Sarr jëlee nañ ko di ressources humaines nañ ko yóbbu Mamadou Tendeng commissaire commissaire central Wali Camara aéroport mm-hmm. ñuy dem rek ñu ne dee dinañ dem rek te te. ne duñ bàyyi aéroport yi moo tax ñu indi waale Camara amut. kon mu taxaw buntu AIBD. E benn bi kilifa nga fa lay jaar ak yenn ci ay kanam benn bi nag mbooloo mi fa la ñuy jaar ak ñi bëgg ne poset waale ngi nii. du jaar xam nga lii rek signe la. mooy dem leen ngeen riigu bàyyi leen tukki. dem leen toog mais demal toog. ba député beeg maire bi jeex juróom benn weer jàpp at laay toog way ilaa bu may tukki man damay yëglu mhm. wax kilifa gi ne ko man damay tukki mu ne la ku la fi mhm. nga ne ko bañ a dem ba aéroport ñu naan la dañ la fichier dëppal am gàcce ñu naan diw dafa dem ba fële dugg na fi génn fi moo tax mu ñëwoon ba ci yéen ñi ngi dénk wàllu kaaraange réew mi laaj leen ba xam sama tur bii dugaluñ ko ci machine yi ñu leen la ba fii déedéet mhm. nga jël sa roppalaan dem waaye yow dem ñëw ñooy demal toog nga weddi nga tukki ñëw dugg ci dëkk bi a ah wuñ la xaw ma foo jaar yow jógaat di dem ñooy demal riigu demal toog Wally Camara. mu nga buntu AIBD. ñu ne ko li nga bëgg amut amut duñ sonn rek duñ sonn duñ sonn duñ sonn waa koñ bi lañu dégg voilà. xam nga sama loxo bi xam nga sama loxo bi laa doon joxoñee soose. mais gis nga léegi certaine même ah. il faut qu'on fasse vite là. la woo ko que yow mukk ci àddina. bi lañu ko eh, du moom wóor na yàlla du moom ah, keneen ki la beneen kilifa bi ah, la. ki la woon beneen ancien policier bi la waaw. ok waaw loolu nag képp ku ma tuumaal ne loolu nag bàyyi naa la ak yàlla parce que amut. 24 heures ñëw ak ñun ci au conseil. Mm-hmm. conseil économique ana kuy mujjee kàddu gi commission des lois daal suba dinañu daje. Abdou Mbow nag nee na nii ñoom Diomaye ak ñoom Sonko jógee jotee du dara lu garaaw bëgg a jabo jaboliser nit ñi tam nit ñi dëmm très diabolique une approche politique très diabolique Mbow la lii la wax. sa copain. sama copain woon Abdou Mbow kay ba liñ nekk assemblée yëpp maa ngi seq moom jàmm. waaye ba ma fekkee ma taxaw defar sama cravate bu baax. yóbbu ko ko gauche. ci digg bi leen cravate bi taxaw mu yóbbu ko droite ba ma yaakaar ne da koy jubbanti rek mu ndëj ko gauche ndeke li may romb nit ñi yëpp man sama cravate bi fii la ne <laughs> mën a doser boo sañsee xam naa muy doser lu rëy yaakaar. wuy ma dem naa ci restaurant bi ndekki. nuyu paa yi ci couloir yi nuyu gendarme yi. bëri di xin-xin yi ndekete cravate bi ma nga sama nopp <laughs> fu ma romb ñu ne ma ku la faar du ma koo xëcc bu fii <laughs> kan moo daw ku la faar. nit ñi nit ñi. lii na ma de li mu bi. li mu wax noonu noonu noonu naan ay noonu dama la doon defaral amut. da doon faar. amut mu doon toroxal dégg ay dafay président groupe parlementaire. yooyu askan wi nee na gis nga ouverture séance bii ci règle dong lañ ko teg assemblée nationale nag léegi ni le mën naa jàpp date. fixer séance su commission yi d'ailleurs suba la. Mhm. fixer séance su plénière bi pour examiner wu projet de loi bi. Pedro Sanchez a ngi ni premier ministre bu Espagne. Mhm. Serigne Bassirou Diomaye Diakhar Faye daal li wax dafa leer ba mel ni mi di démb ba mu daje ak tubaab mhm. xeex wàllum terrorisme. Balzac ji Sénégal dana ca ne de bu leen yaakaar ni gone yi di dem nii di ñëw ñun ñoo ñun ñoo ñoo leen di indi ci seeni réew. bu ñu sañoon ñu toog ci réew mi te ñu ngi ci xeex bi subaa ngoon guddeeg bëccëg na kër dugg ci bas bas bas kër du man de bas sëñ ba sëñ bas président de la république na kër dugg dugg. defaral leen Bassirou Diomaye Diakhar Faye ay kër ndax li mu wax Pedro Sanchez mii di premier ministre bu Espagne. Mm-hmm. na kër yi dugg danoo xër nag ñoom indien yi dégg direct news ñëwal maa leen tuddee indien it maa ngi bàyyi ba benn télé rek. tuddee mbese mbese Pastef bi ay ñee ñoo dàq xeex mag ñi mag ñi dañ leen jàpp dinañ tëdd rek mais ñee doo leen mën a jàpp <laughs> ci BRT bi laa ko xamee te mairie nii nii xoolal boo fi rombatee ba ne Sonko ma <laughs> ñu romb dem boo yi ne xoolal mag <laughs> yi waaye mag ñi moom pour nga jàppaleen day yomb dañuy romb nii nga leen jeex poñe leen ka ay eh, kaayoo brasé leen mais mbese mbese gi jàppuñ ci kenn mineur tuuti lañ ci jàpp dégg direct news ñëwal ñun ci passeport doomu gendarme Didier Badji ay détenu ay immigré te ambassade France ci boppam téye ko Guy Marius Sagna nag soose nee na lii dafa war a dakk le 30 juillet 2024 nee na la fixé loon ak ultimatum une semaine ambassade de France ci Sénégal pour ñu delloo gone yi gendarme Didier Badji Mile ak Daba Diouf seen i passeport ya ñu téye depuis le 21 août 2023 nee na semaine lañ ca teg ba ca mu dégg amba ambassade de France ba ne woo na njabootu Didier ga ak Daba kon xam nga ko li ñuy def teguñ ko. ko tey mm-hmm. amut. ne enquête yéen ci. APR day ñu ngi défendre seen bilan c'est de guerre bilan bi. bilan bu weesu. sakkanal nee nañ xaalisu réew mi. Ah. rationalisation bi Ousmane di wax. ñoom nee nañ ñoo ca ne. nee nañ lu ëpp téeméer ak fanweer ak ñett ci ay milliards sakkanal nañ ko ci wàllum koom-koomu réew ndox sakkanal nañ ko courant sakkanal nañ ko téléphone sakkanal nañ ko. oto da ngeen dawoon ak moom sakkanal nañ ko logement agence. da ngeen lànk du ko génn. maa ngi suuf si. c'est bien logement yi. mais mais journal bi nee na mais lii lii mooy tukki àdduna. Mm-hmm. lii ku ko sakkanal ku ne. lii mën naa defari hôpital. Mm-hmm. lii mën naa defari. soo se est-ce que xam nga ni. lu ci tolloog juróom-benn junni presque ci ay salle de classe. ñenn ñi ne nañ. 3000 ñenn ñi ne 6000. ci buñ ñu tasee conseil économique. ak ak waaw waaw waaw mën nañ ko cee tabax. kenn mu tax abri provisoire sax. ah ah ah dégg ngi nii. Sidiki Kaba ne livre bi nag mais tontu la ci tuuma yi nga xam ne ñu ngi koy laaj ci suñu ndodd te tegul fenn lii Pastef di wax amut bi. kat ba mu woo ko fi. dégg nga Pedro Sanchez a ngi nii def na alliance de. Mhm. bennoo bokk xeex mbënn mi. bennoo xeex mbëkk mi ñu ngi nii. Mhm. ñoom ñaar seen coalition lañ def. bennoo bokk xeex mbëkk mi. waaw Pedro Sanchez ak Bassirou Diomaye Diakhar Faye. moom Espagne ngi nii ñoom danoo yor buur seen premier ministre yi ñooy doxal. kii nag la Alioune Tine war a waxal Aliou kii moom day gouverner père waaw Alioune Tine tam dama ko ruus métier mi métier mi dafay ingradé ma ne kii kii moom kii naataangoo premier ministre Ousmane Sonko la. waaw mais moom yàlla moom daa dogal dëkkam ñoom danoo amul président de la république. buur la moom. waaw ñoom danoo yor buur moo tax ñoom seen premier ministre bi. mooy doxal waaw ñoom mooy gouverner. waaw moom moom day gouverner dëgg nag waaw waaye kii tamit premier ministre am la jël ne ko na doxal léegi ca doxal boobu lañ ne dégg Rewmi Ménage daal en tout cas am na ci kaw police nationale coowal ba faa bayoon nga ak la fa faatuwoon ci ay doomu aadama René Capain Bassène mi lay naataango taskatu xabaar buur démb nee na nañ ko tëj giiru dundam allahu akbar allahu akbar mu dee yàlla na yàlla doole sutura. amiin yaa rabbi hmm? amiin amiin. ca. doy minutes pour lire l' essentiel projet de loi portant solution du conseil économique social et environnemental ak ACCT ay député yoo xam ne daal nee nañu lii delloo démocratie. gannaaw gannaaw la. Hmm. ay demande d' explication de. ak ah. ay menace de euh, yoo xam ni moo lëmbe port Waly Diouf Bodiang Waly Diouf de boolewul dara ak coow day dem stade seetaan ni làmbam dem nawetaan seetaan nawetaan ñëw dugg biir port jub-jubal jubanti yat ba day la yor dama ragal ni grenade yañ ko doon dóor bis boobu lay fayu ci nit ñi Waly <laughs> Waly borom photo bi wax na dëgg nag waaw léegi nag critique yéen a kaay ñëw ñin Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak Ousmane Sonko futti député yi la ñu def futti député bañ sëñ wee. nan la ci nan la ci këccëf nag. sa ah. ëpp naa def ci boole. kii na torop. Mhm. yàlla xel dee. amiin. waaye yow ñii ah. de. lu rëy. Ah, waaw baax na. dégg lëfa de. lu rëy. waaw baax na. dégg dégg vers une élection anticipée waaw kay la léegi nag seen livre baa ngi nii livre bi nga xam ne bale bi moo ko fi jëlee livre baa ngi nii voilà li ñu wax nii de xam naa boo demee waa Pastef fa nga toog fi ñu toog te naan amut amut du dëgg nee na livre blanc sur les douze ans de règne de Macky tout sauf des ruines ñii dañ ne bi ñëwee dañoo fekk réew mi ñu dëbb ko ba mu mokk réew en ruine dégg waa kër Macky Sall nee nañ bilaa baa ngi matériel ak i immatériel lañ mën a dut baaraam ak yoo xamante ni nii moom def na ko te mën a staatagub loxo cëb livre daal lañ ko bind Macky lépp ma weex ndax bëggul lëndëm ñoom ci liñ wax ba samay kàddu bale bi nag fekk na ko fi ma. su taxas na ko. dégg adduna boo de man adduna bu demee ba Guy Marius Sagna di ma yedd fala waroon jaaree bàyyi politique. dana waroon dem ci Amadou Mame Diop jox ko démission ne ko man bàyyi naa dem ca mairie ba ne bàyyi naa. Guy moo la doon yedd. voilà dellu ci rajo bi ñëw toog yegg sama liggéey mu ne ma mais bul toog ci rajo di tontonte ngeen ñoo xam ne rawatina ñu naan yow sëriñ nga. Mm-hmm. naan ay kooku bu ma dajeeg moom dama koy ñu dem jaar ci digg bi pour la prochaine fois. Mm-hmm. ma ne xëy ma man di xool gii. <laughs> nga ne ma ne ko yow yaa ne kii kii la wala Mouhamed. ma ne ko yow <laughs> yow yow yaay yow nit koo yedd ci xeex daa war a dee xaru. ak a gaaw ci xeex. ma ne ko man bis ni ki tey. bis ni ki tey. bàyyi naa. mun wax ci kaw dootuma ko def bu dul dama doon revue de presse waxutuma laa xuloo bay xeex gi yow yaa yedd Amadou Ba toog suñu diggante Amadou Ba passé ma ne ko ma. waaw réer ma amet xeex baaxul. ma ne. <laughs> waa Pastef ñoo may yedd man pour ma bàyyi xeex. nga ne joomi amul heure nag. joomi amul heure moo tax damaa ñëw dem sama kër toog sama néeg man donc soxna sa génn ñëpp génn. man man waa Pastef ñoo may yedd man. ne ma daa bàyyi xeex te bàyyi xuloo Pastef Pastef. kon war a xam ne bàyyi xeex jot na na waaw passé passé na. Mm-hmm. ba nga xeex c'est fini. c'est promis. Pastef dem ba di ma yedd man ne ma bàyyil xeex. gii wax ma ko. Amadou ma dëggal ko Ismaïla Diallo fu mu demee ba naan ma man bu ma bàyyee xeex yow da ngaa war a bàyyi xeex te moom assemblée coow yi fa déclenché ci làmmiñam boobu la jóg Pastef ñu may yedd te may a bàyyi xeex da yow it. non kenn dootuma ci seenati. man mii sax bi tuuse tam. Guy Marius Sagna mu may yedd man nii taxaw nii en chair et en os mu ne ma góorgóorlu bàyyi xeex yeneen ñaari waa Pastef ñëw di may Pastef. Pastef ak li ñu xeex ci réew mii. ñoo lay yedd ci xeex. Pastef ñi ak seen parti bi nga xam ne barki démb la waaye indépendance ba léegi li ñu fi jot a xeex ci lu ndaw loolu nit ñi xeexuñ ko ci 64 ans yi Sénégal am ba mu juddoo léegi ñooñu ñooñu ñoo may yedd soo sa moo bu damaa ñibbi yedd sans bopp ma man nii. on a soppi ko naa topp nii riir mi rek di di di kii bañ rey ma ci lenn xeex laa ba te ñoom ñoo leen ne leen li ngeen wax amut. di ma woon yi may ma yow dégg léegi gestion Macky sàll bi daal jàpp nañ ne ñoom fekkuñ réew moo xam ne dañ koo dëbb ba moo ko rumbux comme ni ko waa nguur gi waxee nee loolu amut liggéey na ay chantier yu rëy infrastructure document bi dong wane na ko waaw ñoom daal ci kaw gàttal jàpp nañ ne Macky mii mooy càppacoli bi lépp gongo lépp gongo Macky gongo andira bi salmino bandiraɓe mi salmino nuyu naa ñëpp ɓogole séréer i sinuwa num dégg la séeré kay ñëw ci fukki atu reñ benno boo ko yaakaar tontu nañu ana lañ tontu téere la ñu jël bind ca la nga xam ne moom lañ wax ne moom la Macky Sall def ñoo tegal ko nit ñi Amadou Mame Diop a ngi nii Bassirou Diomaye Diakhar Faye a ngi nii bu mm. <laughs> ko député yi bëggee tere kii lay jàkkaarloo mm. réglé ko député <laughs> kii wan député kii ñëw jàkkaarloo moom rek les députés président commission yi war na député simple yi député simple yi moom mi député yëpp joomaay ñëw jàkkaarloo moom rek la assemblée. si ñu affaire di tas dégg lii lii lii ñëwal ñu dem le mandat yéen kay ñëwal ñun ci journaliste René Capain Bassène coowal bu fa bayat dañ ne moom rek moo ci coupable mi ngi ñëw. mi mi ñëw mi mi deux mille vingt daal seen coalition bi rafetlu nañu tànn bii nga xam ne président Diomaye Diakhar Faye daal dina koy tànn. dégg voilà gis nga kii Marie Sagna ngi nii yow yow li ma la revue de presse asànq doy na yow ma yow ngay yeddee xeex xeex ba nit ñi xamee la ci xeex. Cheikh waa waaye nee na waxal ma waxal ma Ahmed il est trop ne ko loolu loolu kenn waxatu ko kooku xanaa day doog a ñëw Cheikh Tidiane yow. le le point. <laughs> ñëwal ngeen ci. bon dama fi kii léegi nii gars yi commencé war naan dafa bëri titre. Cheikh Tidiane fu mu nekkoon. te li ci xamul kat damay fon yi rek. non non garaawul bale bi. bu ma naree def eh, def tojaa ngi dëgg ci ginnaaw njiitu réew mi lay ñëw taxaw. non dama bëgg a xool photo. joomaay xool xar ak sa xar kanam rek. Ah, xam nga. fi moom nuroo amu fi moom. kan maa ngi Macky Sall. nuroo amu wax dëgg neex yàlla amul benn trait de ressemblance ressemblance du moins waaw man daal sañ Bass rek nga may jox. Bassirou Gueye. waaw sëñ Bassirou Gueye daal moom leer na ma ne. bu ma hmm? moom nga may nuróol en fait. xoolal yaa Macky moom nuróowu kii nuñ nuróoy te mu dégradé. génnee fee. le premier ñëw ci. dégg dégg nee na bilan économique impressionnant ba pare bind la bâtisseur yow kay da ngay dëggal sa bopp looy entre guillemets looy entre guillemets yow kay defar defar la bâtisseur kon xanaa li ngay bind da nga koo gëmul amut. li nga bind di amut. les quotidiens a kaay ñëwal ñun ci léegi rek assemblée soo jëlaat na ay pouvoir am. Oh. di solution du au conseil ak conseil économique. commission des lois suba la ko woote Amadou Mame Diop a ngi nii. voilà Adrame Sarr ak Bara Sankaré changer nañ leen di place dégg nga xoolal boo jàpp libre René Bassène des ci kaso bi. coowal ba faa bay doy na waar dégg le regard ñëwoon ngeen ci Lansana Gagné Sakho. ma nekkoon onage. Mm-hmm. man nag man c'est que man man man li ma jaaxal mooy bon yi na attaque personnelle yi moom nit ak nit nii rek ah. xoolal gi xoolal gi dégg dégg bind na gouvernement wu Sonko bi de lettre dem leen ngeen yërlu li ci gii wax kii yéen daate bàyyi xeex te dàq xeex dégg ma ne xéema di ko déglu jël sama temps taxaw naa fa presque ay lu tolloog ay douze minutes. ma ne ko maa ngi ndékkite ñëw voilà voilà ku ànd ak Guy Marius Sagna defal kër ku d'accord ci li ma doon yedd tamit nga def kër les républicains ñëw ak ñun ci dissolution assemblée Diomaye obtient le feu vert du conseil constitutionnel dégg nga Bara Sankaré ngi nii ak Adramé Sarr remplacé nañ leen ci sûreté urbaine ak division des investigations criminelles dégg le soleil yéen gis nga li ñu doon wax ak ndakaaru Ndiaye Dial Diop ak Madrid. Ah, waaw waaw seen position daal. ci lu jëm ci wàllu immigration irrégulière. Mhm. Barça ak Balzac coowal Sahel bi ba ca Gaza. Ah, waaw. premier ministre bi ak ba Bassirou Diomaye Diakhar fay gis nga ko ni espagnol Pedro Sanchez signé nañ ñaari accord Madrid daal fi mu nekk nii li mu bëgg mooy gis nga. Mhm. wàllum dem gi mënta ñàkk. Mhm. waaye da da da da koo war di ordonné. waaw manière dem gi. merci beaucoup. voilà voilà Bassirou Diomaye Diakhar Faye ngi nii yàlla rek ay buur. Mm-hmm. Mm-hmm. yàlla rek a mën. yii yii yii ku ci xool wàññi soxor. wallaay. yii ku ci xool wàññi soxor. Mm-hmm. lu musul am. <laughs> dafa am yoo xam ne ñun dañoo war di yee. mais ñun yàlla ñu bindee dëgër bopp. moo laa ñu. doomu aadama yi lii kenn xamul lan la. y a des éternels sisouman na ko noonu. bari nañ des éternels sisouman. boo loolee nekk benn rek. ñu lànk ma dugal leen ajal ngeen lànk su ma neexoon ma def leen comme suuf yi wala vague yi mhm. maanaam kuy ñëw ñëwal sa bopp du am ndey du am mbaay mhm. déggoo ma de vague yi ñoo gën a bëri nit ñi bu ñëw doo ñëwaat te saa su ne vague yi ba géej amee ba tey suuf si nekk fii nii boo génnee fii dank benn rek moo gën a bëri liy dox ci kaw suuf toll ci juróom-ñaari milliards mais ñooñu amuñu ndey amuñu bàyyi ak seen bëri waay mm-hmm. yàlla ne boo leen gisee ma defaral leen am ay tante yaay papa tonton référaire fereer bàjjan <laughs> yaay yumpaañ papa ak yaay maam maamaataati maam mm-hmm. mais damaa bëgg ngeen def nii seen xol yi mm-hmm. booloo nekk benn mais ngeen lank dëgër fit ba dee. ñàkk booloo seen dëgër fit boogee nag bis boo leen dof dofloo ba jàkkaarloog man yaakaar ne mën ngeen a bëree bëree bëree seenu fit wala mën ngeen maa të juum ngeen même tëggi sax buñ demoon ba mu nar a nekk xam nga mënta ne mais bu naroon a nekk man lëjjanti leen en une fraction de seconde. Mhm. parce que maama taati maam yi laa naan ñu wan na ñu wan na maam yi. maam yi wan na bàyyi bàyyi wan na ndey wan na doom yi ma deseeg ñaar ñi leen di fi ànd di seen ñaari maam yi Adama ak ma ne Adama na wan na Hawa ma jàkkaarloog moom lijjanti gaani est-ce que match bi tas. ngeen ne siisu rek demal riigu nga bañ demal. Mamadou Diouf Mamadou Diouf ñu ngi lay nuyu bu baax. li mu wax amut. kan la. le terme mooy yéen kaay ci. dégg assemblée nationale xiiroo ngaa yooyu mujj yi xam nga xeex bi dafa yàgg ñaari at yëpp ci xeex lañ nekk. Mhm. lambi golo ga mel ni tulleeg male ku jug daanu. yaa ko moom dégg waaye xeex yi mujj yi nag ngi nii man léegi kenn du ma ci dégg comme que ñëpp yedd nañ ma xeex moom bu amatee atte sax du ma ko def bureau sëñ Cheikh Thioro laay dem toog dégg le verdict si metre si maître Ciré Clédor Ly ne amaat na beneen ndam ñeen mm-hmm. tuumaal ñëpp dañ leen a baal sauf René mm-hmm. Bassène journaliste bi moom daal maar détail yi ñu ngi noonu dégg les kay ñëw waaw waaw waaw mais soose wax lii tam lan la. kenn xamul bi gang gang lii lii gangster bi kii moom kii ban gang kii waaw xanaa gang bu ñëw gën a garaaw gang ba ca ñëw ba ci néegu jàmbur. jàkkaarloog moom indil saak wi def xaalis fukk bal mu dal ko ci mu weex nees tut mu ñàkk bakkanam te film lii. dëkkandoo yi génn yuuxu. mu génn ci biti dóor bal ci kaw sommation rël mbooloo ma tasaaroo mu lekk ko. dans la nature. Oh. heureusement ba bi jàll mi lay deewul. Hmm, heureusement. jàppaguñ moom war ah! ah. lii lii réew mii. Ah, lii tam lan la. ku yabu di tëju de day leen tëj. ah day leen tëj kër yi. gën a tëj kay. day leen tëj yi daal la ngi nii. coow li nag mooy Aline Diop parti démocratique sénégalais lan la fa doon def <laughs> lii eh, les échos la présence du PDS. invité da doon jëmmal bés bi rek. jëmmal bés bi waaw <laughs> jëmmal bés bi. rafet leen jot nag honorable li da doon jëmmal si bés bi. ah doy na waar de. ah mais est que nekkul ne tam comme moom da doon maye doomam samedi bee. Hmm. est-ce que newul ne ñii dañ koo ñëwaloo. waaw loolu xam nga loolu tam papa mën na ci am. ah waaw léegi ñoom léegi ku doon maye fii. <laughs> moom a jaaxal de. daa am ku doon maye fii. non peut être maye wuñu boobu moo jiitu woon rek moo tax ñu ne. man de woo na moom a xàmmee loolu loolu loolu la wala samedi. passé moo tombé woon ak euh, samedi màggal. kon est ce que du samedi bële. ah est ce que ne soose ñii dañ koo ñëwaloon ci takku doomam. waaw ah, waaw xëy na. Mhm. wala xam naa bu ñu jógee fii war a àndaat ci beneen takk. loolu tam mën naa ne nañu rafet njortu rek ba keroog ñuy mm-hmm. kii. on verra. on verra bien. Bira Sène de nga noonu ne fépp moom yàllaa ko mën. dégg nga évidence yéen kay ñëw ak ngeen ci dig sûreté urbaine DSC e, commissariat central Dakar bopp yu bees Benno Bokk Yaakaar nag ñu ngi ngand ngandloo bilan historique bu Macky la mu def ci réalisation. secteur yu dund gi mi ngi waaye Amadou Ba ma fa nekkul nag ah li soose wax dëgg na. Hmm? waa Mbadou day confirmer ne am daa bàyyi lii daa jar a laaj. sëy <laughs> baa tas yow am nii ba mu digganteem ak waa hmm. affaire sëy ba mu tasee kañ la. fayul de dafa bàyyi. dafa tas. Hmm. daa baax voilà. mi ngi noonu nag eh ñii itam defar nañ couleur dellu si waat rek defar nañ kuréel de. ah ay aji mbergaan kanute waa waa ji jaañ te mu nekk ci affaire Moustapha Diagne. Ah. ak ñoom Mousli Diakhaté la pata de Taala Paar Mousli Costé euh, ñii ñëpp dañoo defar benn front bu bees. Ah. xam naa dañuy dem ci député. Ah, mi ngi nii la pata de Taala Paar Mousli Costé. c'est ça Koutia. pata de Taala Paar. borom Karawala. ah d'accord. waaw waaw waaw waaw je veux comprendre ci gis nga premier bet. naar naar bu ndaw journal bi nga romb nu mu tudd. évidence évidence waaw d'accord. ma ma may la ko. danaa ko yër waaw waaw aar ma ko dama cee dama cee xàmmee ñaar ñoo xam ne ni. xaaral ma may la sama évidence bi. est-ce que Amina Amina Ndiaye bu ñëwee du kaas. bëgg xam seen taxawaay ci réew mi lu mu. Amina Ndiaye. surnaal la bu doon tës tës tës tës dina am tey de seen émission. la sax. émission fait divers 10h30 10 h mag bi tës tës. Mhm. tey ngeen dégg mu lu ngeen mus a dégg. yi doy waar. dégg. directeur général le premier bét a ngi nii. naar bu ndaw naar bu ndaw bi sous bracelet électronique impôt gi daal lañ koy toppee douze milliards deux cent cinquante neuf millions waaye ñoom nag li mu woote fi mu nekk nii seen kuddu jàmm la ràcc médiation pénale daal lañ woote loolu ñun ñun suñu nekku ci bëtuñu bëtaanuñu kartuñ kartaatuñu naar bi di nga rey gone yi eh! lii quotidien ñëw Benno Blanchi Macky Sall seetal nañ ko moom set wi seetal nañ ko ba mu set huit huit huit huit huit huit huit huit huit waaw nee nañ daal li mu fi def eh Abdoulaye Diouf Sarr fa woon yow la croissance générée par le plan Sénégal émergent n'est pas une croissance tirée par les flèches ah bon <laughs> li ñu liggéey li ñu liggéey nekkul ay ay portale kii ay liggéeyu internet de ak lu nit mënul teg baaraam ak duut ca baaraam de loolu la Diouf Sarr bëgg a wax lii dee laa xam ni da am jom am ngor ba muy neex. saf suukar. toog fa ba muy naqari saf kaani. dëju fa riigul lay daw toogal l'indépendant yéene kaay ah cam jàmbaar yombul de <laughs> kii rent bi émigration irrégulière Ndakaaru ak Madrid te ngeen nii lee jubóo nañ ci kàddu. lëkkaloo nañ. Pedro Sanchez mi lee ak Moussa Deme Jumaye Diakhar Faye. ngi nii ndeysaan xam naa ne. moo ëpp problème yëpp ñëpp ñëpp ñëpp nit ñi dañuy dem par week-end seen dëkk moom daanaka sax ñetti fan mu bëggoon a dem loolu doon nam ma waajur yi ndeysaan fi mu nii xam naa boo demee. ndeysaan jaaxle na. nit ñi par vendredi li ñuy dem ak ay samedi dem seeti waajur yeeg dem nimmi ko ci mbokk yi bas moom boo sàgganee moom liggéeyee bët six heures yegg njaga ñaaw ñëwaat liggéeyaat mardi mercredi jeudi mu demaat. vendredi sa ngoon samedi matin bas dem. bu amee bu amee jot tuuti jaat àgg ci tool yi xool. waaw xool gàncax gi bas day dégg les promoteurs nee na police day dalal na xel yi. ah alhamdulilah ray gi ci dëkk bi. police daal en tout cas daal xamle nañu carrément ne bu nit ñi tëddee moom nañ nelaw lii dinañ ci jugee l'observateur ñëwoon ngeen ci les premiers instants de Nabou Leye ca kaso. Mm-hmm. chambre cinq la nekk. petit mu ngi commencé nag. bon c'est normal. guddi gu njëkk moom. ku fanaan ci euh, kaso même bu doon dafa am sax clim am lépp lépp lépp lépp lépp lépp lépp di Diop loolu laa ko reetaan bay bëgg hmm. ma ne ko Sébi ku daan moom vraiment foofu moom moom moom tane na ba léegi de mu ne ma non. père daal kër grand Iba Sey mii ma toog rek bu jékki-jékki woon ba nga génn fi loolu rek neexul <laughs> ma ne ko dëgg la de ngay génn rek sa dàll réer nga ne nii mais da mel ni ko dof. nga bëgg a génn mënoo génn. voilà dégg kon loolu c'est normal l'observateur nañu police a ngi ni le chamboulé nañ fa lu bëree bare bare livre Macky Sall bi nii nii yéen liir ngeen ko joxuñu leen ko démb. pooye ak ki la. Pedre. bu dul lii affaire saf nañ fi sàpp Benno veut noyer le projet devant l'opinion baax na. une tension désamorcée de justesse Farba Ngom Abdoulaye Seydou Sow ah bon. Hmm. Amadou Ba et ses amis grands absents de la rencontre ñooñu dañ leen yéen yëgoo leen am dafa bàyyi waaw ah, waaw benn oto dëgg nañ bopp de lan ngeen bëgg mu ñëw am nañ leen koo wax ki leen ko wax boo leen demee nee ko am nee na amut. am bàyyi na. am bàyyi na am ah, bi ma lay bàyyi daa yàgg. dafa ba kii rek nii kii en pleine campagne la waroon ah, daw. réew mi quotidien ñëw ñun ci un en ruine dañ koo fekk dëbb ko ba dëkk bi dañ koo dëbb ba mu ko rumbux deseetul dara démb nag la waa Bennoo daal di génn génnee seen i chiffres ñoom waa Bennoo boo ko yaakaar jaga ko Ousmane Sonko ne ko dëkk bi kay bi ñu ko fi bàyyi gongo sur ce à ñëw xoola ñaari tataay doon njëkkante soose. Mm-hmm. doy mooy réew mi njëkkante mbëkk ay borom moto yu jugee woon Seras. ba pare li ci gën a doy waar. ñaari chauffeur yi daw ñaari booy dee. oh tata ba daal gaari foofu mu gaari. noonu la ñuy def xamal ko doon keroog naan mm. ñaari numéro yu yu bokk ñu bokk numéro dañuy njëkkante xool kan mooy njëkk a yegg ak kii ba terminus ba à chaque fois noonu la ñuy def doy na waar. léegi nag nga ne lii kenn du ci wax réew mi. dégg dissolution assemblée nationale le dilemme de Pastef defaraat liste yi. soo sa li nga doon expliqué léegi ci. Hmm. cinq mois yi mbaa du ñu yegg deux mille vingt cinq. ah et cetera et cetera waaw kay waay dégg lii lii c' est jeex na Sud Quotidien ñëw Macky Sall da ngay tontu Diomaye <laughs> ak Sonko. Macky kay dañ koo tontul. ak mën a lijjanti boppam. terminé yéen a kaay ñëwoon ñun ci rey gi dee daa continuer rek diggante leen dégg jeudi rek ñeenti nit ñoo dee. Ah. jigéen boobu tamit xale boobu ñu for ca kanaalu bari nga ba. Grand Yoff kii doon sëwee ku jigéen ki far ñu dóor ko bal mu dee léeloo ngi nii dix-huit ans dañ koo jam moom it nijaay moo ko def mu dee beneen nit koo xamante ni nii ma maar de taali gars yi dañoo ubbi safari démb ci kaw waa réew mi moom lii police mu hmm, ngeen gaaw de dégg livre bilan baa ngi nii waaw ñoom daal tontu daal lañ doon def ñoom joomaay ak ñoom Ousmane Sonko premier ministre ak président Sidiki Kaba di premier ministre bu mujj bu Macky Sall génnee na moom livré man Sidiki Kaba sax man nu mu sawaree ci wàllu politique bi daf maa jaaxal kii ñëwuloon sax wala même photo bi la. même photo bi la même photo bi la dañ fii ñu wëlbati nii. gisoo benn fii la féete. ak kam man àndandoo man de ni rek amay rey man <laughs> na ko yàlla suturaal livre blanc baa ngi nii ci réalisation Macky gis nga ko benn ngi nii. day challenge si projet projet bi nii. <laughs> da koy challenge. waaw waaw baax na garaaw amul problème record ñëw ñaxate ñaxate du mu moo nekk suñu zone bi raté woon penalty loolu garaaw amul problème compétition la woon voilà yoor yoor Adrame Sarr ak Baara Sangaré jëlee nañ leen dikk ak sûreté urbaine Alaaji Beyti Sène ak Ismaïla Goudiaby aux commandes Pape Mamadou Diack Faye mooy patron wu cybersécurité bu bees Pedro Sanchez a ngi nii Ismaïla Diallo ngi nii moo dàq xeex ñëpp naan day jéem a euh, euh, yeddaate nee na Pastef est en train de tenir promesse ah moom dee ko def rek wax député nga bu ko defee nga bàyyi xeex. Mhm. Ismaïla Diallo loolu moom man maa la ko xelal lii moo ma ma bàyyi xeex mais yow maa la xelal. nga bàyyi xeex parce que yow la mag. foofu nag laay. war a bàyyi xeex. l'argentin. tuyoo boobu war a bàyyi xeex. nit ñi dañoo sonn. dañoo sonn ci xeex bi sax. xeex. man de fu ma a tey mbooloo muy xeex. xeex sax ay nawetaan ak yow dama wéeri. xeex sax a wóorutul instant bi. te xam lu ci lu ci doy waar yow boo gañee sonn buñ la gañee nga sonn. wallaay waaw daa amul mucc. gisuma lu lu ko gën a naqari soxna jaara léegi ba kañ. ba leen di allah dinaa la ndam nag ci weekend bi. wallaay maa leen raw. dinaa la trop sama samay doom ngeen. Mhm. maa ngi ñaan yàlla yàlla dëgëral seen taxawaay. amiin yàlla jàppale leen yàlla aar leen. yàlla suturaal leen. may leen vraiment mën leen a yor. amiin yaa rabbi am teraanga am na grand cœur ay xol yu rëy. waaw ak ay beau cœur grand ak boo beau cœur xol yu rëy te rafet lool yàlla suturaal leen. amiin yaa rabbi waaw. très bien moom lu mu ci bu ko defee nag.